Abdou Thiam maa ngi lay nuyu. voilà maa ngi lay fay soxna si bu baax a baax. Mm, Abdou Thiam nga nekk euh, vice-président bu commission communication bu parti démocratique sénégalais euh, laaj bu njëkk ma lay laaj euh, ci biir parti démocratique sénégalais naka la yëf yi demee fi ñu toll nii. waaw parti démocratique sénégalais mbir yaa ngi dox bu baax a baax gis ngeen fan yële paase ba ba ñu ubbee le président Karim Wade def benn message wax ne képp koo xam ne militant PDS nga wala koo xam ne da nga bëgg jàppale PDS nga dem fexe ba au moins nga mën a inscrire fukki gone loolu nag ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo ci suñu dëkk yi suñu commune yi suñu dëkk suñu village euh, boobu ba léegi nag liggéey baa ngi dox bu baax a baax ngeen démb aussi le président Karim Wade dem moom ci boppam dem Turquie dem inscrire mu nekk un message important pour euh, ñun ñëpp. wane nañu lépp lu ñu bëgg a def te amuñu carte dañuy sonn rek donc euh, je pense que tey li ëpp solo ci liggéey bi mooy ñu fexe ba ñëpp am seen donc loolu parti démocratique fédéral mooy suñu yitte moo tax euh, lu fan yëpp gisu leen ñu ay nekk ci ay conférence wala nekk ci ay ay meeting waaye ñu ngi ci sur le terrain avec les jeunes pour aller en tout cas pousser les jeunes à s'inscrire euh, sur les listes électorales donc euh, ñu ngi sant voilà léegi euh, comme ni nga ko waxee seen candidat naturel di Karim sa Wade gis nañ ko muy inscrire ci liste électorale yi foofule ca Turquie mais euh, li sénégale yëpp di xalaat mooy jàpp nañ ni Karim Meïssa Wade munul bokk ndaxte dañu ko condamné woon ci wàllum traque des biens mal acquis lan ngeen mën a tontu si loolu. waaw di wax Sénégalais ñu fàttaliku bu baax. que président Karim Wade en deux mille dix huit la inscrire woon ñu ñu génne ko ci li ci ndax ñu jàpp ne président Macky Sall moo dem changé code électoral code électoral bi fi nekkoon dañu waxoon ne pour nga nekk candidat da ngay nekk un sénégalais rek waaye président Macky Sall pour am ne président Karim Wade mën a bokk dem changé con code code électoral bi dem article L cinquante sept mu changé bu def ci benn benn benn benn benn yokk ci benn ben moom mooy électeur électeur boobu nag Karim Wade code bi. moo ko tere parce que yaa ngi yaa ngi fàttali Sidiki Kabaka bañ tëjee Karim Wade nee na si Karim Wade xañuñ ay droits civiques xañuñ ko ay droits politiques donc mais ba demee ci code électoral bi dafa am ñaari article yu fa nekk ñu wax L wax ne képp ku doo mën a bu ñu fàttali ko Karim Wade ñu ko tëj août deux mille quinze donc juróomi at après mu nekk août deux mille vingt depuis août deux mille vingt président Karim Wade mën a nekk électeur mën a même éligible et loolu ci jamono yooyu avocat yi Karim Wade wax nañ ci def nañ ci indi nañ ci leeral bu am solo di wax Sénégal yi ñuy déglu rek ñoom ñëpp nañ dem xooli article L vingt neuf ak L trente yoo xam ni que parce que kenn tëju ko ndax dafa sàcc loolu dafa dafa baax ñu koy ñu koy ñu koy fàttaliwu Karim Wade kenn tëju ko ndax da nga doon jaay lu bon wala ñuy tere kenn tëju ko ci affaire corruption Karim Wade dañ ko tëj ndax dañu wax ne ko da ngaa am alal xamuñ fu nga jëlee alal ci jël alalu buur ci ak ñooñu bo na ko yaaka moom loolu lañ ko ji mooy enrichissement illicite gis nga sol chemise bu rafet ñu ne ko Karim Wade waroo am chemise bu rafet donc loolu lañ tëjee Karim Wade loolu nag bu ñu la ci tëjee loi bi dana bu cinq ans yi passé war nga mën a donc loolu moo tax tey ñun suñu xel dal na bu yàgg moo tax jamono yooyu yëpp ngeen doon gis ñiy yox afro amnistie waaye ñun waa PDS yàgg ngeen di ñu amnistie intéressé wuñ parce que xam nañ ne amnistie ñu suñu yoon nekku ci parce que Karim Wade ñun depuis inscrit mën nekk électeur waaye li ci tegu aussi bu ngeen fàttalikoo fépp fu ñu dem ci àdduna bi ñoo xam ne mooy tribunal yi gën a mag ci àdduna bi bu ñu fa demee dañoo xam ne Karim Wade dañ ko tooñ dañ defaraat procès ba ba nguur Macky nangu lool donc loolu ku ko am doo dem di wax nañ ma baal ñun tooñu ñu kenn donc li ñu bëgg rek moo ni appliquer loi bi loi bi tey fu mu toll tey tey tey Sénégal Karim Wade jàpp naa nekk Sénégal moo ci gën mën a nekk candidat parce que remplir na condition yëpp donc li ci des nag mooy li wax rek que moom euh, am na expérience nekkoon nañ fi Sénégal yi gis ñu fi def waxuñ lépp baax na am na lu ci def lu baax am na loo xam dañ ko war a rectifier xam nañ ko gis nañ ne Karim Wade am na xamal ci àdduna bi am na xam am na relation am na koo xam ne nekk na koo xam ne tey Sénégal yi moo leen mën a dajale ndax kul koo xam ne par par lool ci ni mu mel ci fu mu jógee ak yéen ko yaree tey sénégalais yi dañoo dañ leen a xaajale te Karim Wade mooy koo xam ne mën na leen dajale loolu la propose sénégalais yi te bu mu ñëwee dinaa leen wax lan laa fan laa bëgg jëm ak yéen lan laa mën a def ci mbay mi lan laa bëgg def ci càmm gi lan laa bëgg a def ci euh, pêche gi gis ngeen ne suñu mbokk euh, pêcheurs yi ñu ngi doon xeex jamono yi ndax dëkk bi moom métti da ngay nappi doo am dara lan laa bëgg def ci njàng mi ak ñi at mu jot lu plus de trois cent mille personnes ñëw ci dugub xëy bu ngeen gisee chômage bi dafa jógee ci deux mille douze ci dix pour cent tey mi ci plus de vingt quatre pour cent ci président Macky Sall la pauvreté dafa yokk nit ñi tey ndóol ga dafa métti amul tey dund bi yëpp dafa cher loolu mooy njeexital loolu lañ mën a jàpp ci président Macky Sall ay la yoon président ma waxuñu defu fi dara def na am na lu def dëgg la waaye jàpp nañu Sénégal yi fi ñu doon xaar nguuru président Macky Sall mu ko li loolu lépp nag ñun xam nañ lu tax àggu parce que yoon yu mu jaar mu baaxul yoon woowu nag ñun xam nañ ko donc moo tax ñu wax sénégalais yi ñun la sénégalais di yaakaar tey foo génn ñun fu ñu dem bi fu ñu dem kañ lay Karim Wade di ñëw la ñuy laaj loolu rek mooy wax mooy wax sénégalais yi Karim la xaar parce que tey xam nañ ne réew mi ni mu ni mu ni mu tasoo nii réew mi ni mu jaxasoo nii moom rek moom moo daal série rek moo mën a dajal waa sénégalais pour ñu dem ci kanam te loolu la ñuy ñaan ah weer yi di ñëw da ngeen ci gis eh, dañ def Karim Wade dana ñëw parce que ñoo ngi préparé def monter suñu secteur mhm. monter ñu secteur yi pare section yu bëri monter nañ ko ñu ngi mën a préparé monter suñu fédération après ñu war dem congrès congrès bi koy fekk bu ko defee moom wax Sénégal yi lan la xalaat lan la bëggal Sénégal yi ak fan la bëgg jëmee Sénégal yi te parce que tey Sénégal yi yëpp dañoo jaaxle parce que dund gi na eh, étudiants yi amuñ liggéey chômage bi bëri na ñàkk gi métti na loolu nag la Sénégal yi mooy seen problème teg suñu Sénégal yi du du par exemple du Macky wala mu tudd keneen président Sénégal yi ñu bëgg mooy ku mën na leen génn ci coono te kooku nag warul ñëw di tâtonner kooku ki ñu ko mooy koo xam ni am na expérience état mën na dajale Sénégal yi nekkul ci par parlo koo xam ne am na xam-xam am na relation extérieure koo xam ni tey ñëpp jàpp nañ ne Karim Wade ba lépp ku mën a liggéey loolu Sénégal yi ñëpp d'accord nañ ci kooku nag lañ bëgg. vraiment mu ànd ak PDS ànd ak au-delà du PDS tous les partis et ñëpp ñoo xam ne bëgg nañ Sénégal jëm ci kanam ñi dañ ñëw dajoo autour de président Karim Wade pour ñu mën a développer liggéey dëkk bi ñun daal loolu la ñuy woo sénégal yi dëkk bi moo ñor moo tax boo xoolee parti démocratique lépp loo xam dañ dañ koy dañ wax di taal wala di yàq ñun loolu bokkuñ ci parce que dëkk bi am lu ci def dëkk bi boo ko bëggee doo ko yàq parce que boo gisee ñu bëri ñu yàqule seen yoon ñëw ci mbir donc te loolu dafa nekk lu métti ku liggéey ba am am amam oto wala ku liggéey ba am sar sa bitigam manifestation ñëw yàq ko jàpp naa ne loolu jaadul loolu nag il faut ñu moytu ko ñun ñëpp donc loolu ku ci njëkk ku ci njëkk nag mooy le président Macky Sall mi ñu jox nguur gi moo xam ne moom moo war a indi jàmm Sénégal moo ci war a jiitu ci ñëpp te jàmm nag lu koy lal muy dëgg donc moom moo war a indi dëgg eh, fexe ba képp koo xam ne nga bëgg bokk ci élection yi nga bokk ci ah bu ko defee Sénégal yi ñoom ñooy tànn Sénégal bëgg kooku moo war a jiite loolu lañ koy lañ koy ñaan. Hmm. Euh, léegi euh, PDS naka la gisee euh, euh, plateforme de lutte bi tëral di F24 des forces de la nation regroupé ñoo xam ni ñu ngi ci opposition bi organisation société civile syndicat yi ak tamit ay personnalités indépendantes yéen ban gis-gis le Parti démocratique sénégalais am si mouvement bi di F24. xam nga parti démocratique sénégalais ñun dañuy nangu ku nekk sa gis-gisin ku nekk ni nga gisee mbir yi ak ni nga ko ni nga koy jàppee ñun li ñu wax rek moo di ne ñun dañoo jàpp ne président Macky Sall dafay nekk depuis 2012 ba léegi ñun ñu jàpp sénégalais yi bëri jàpp ne nguur ak président Macky Sall fekkee am na loo xam ne yàqu ci nguur gi mooy loo xam ni mooy li ñuy wax droit de l'homme mooy li wax justice mooy li ñuy wax démocratie loolu moom ñëpp d'accord nañ fekk président Macky Sall am na lu mu def feneen ci ay tali ci ay stade ak ak leneen a leneen waaye ñëpp ñoo nangu ànd na président Macky Sall def wax ay la justice moom delloo na gannaaw ci nguru président Macky Sall démocratie delloo na gannaaw ci nguuru président Macky Sall liberté delloo na gannaaw ci nguuru président Macky lii moom Sénégal yëpp ci maase waaye président Macky Sall ba muy liggéey 2012 ba dafa am mu ànd woon di liggéey di moom rek am ñoo xam ne ay ministre lañu am ñu ay député loolu ñoo xam ne fokki at ak ñoom ñi nekk ak moom ci biir ci gi ñooy def ñooy dindi président Macky Sall da leen sant ñuy def di dindi ku ñu rey ñoom ñoo la rey ku jàpp ñoom ñoo la jàpp ku ñu interdit ñoom ñoo la interdire ñooñu toog ba tey ba nguuru président Macky Sall jeex ñu ñu jëli di ba pare xam ne kon bés bi jàll ñoom ñu génn ci bidon fi ñu nekkoon ne ñoom takkuñ diw ñoom nit ñu baax lañ loolu Sénégalais yi loolu parti démocratique wax na ñoom d' accord ci dañu war a changer de faire la politique ñun dañu nekkoon ci nguur gi am lu ñu Sénégal yi reproche ñu war moo tax changement bi nag du da ngay dem ba nekk nguur gi war a commencer changer ku nekk assumer ses responsabilités waxuñu kenn bu mu génn ci président Macky Sall ku génn sa président nga def sa yoonu bopp ñun ñi nekk ci opposition def suñu yoonu bopp Sénégal yi xool ci kan la ñu ànd ak waaye mënuñu koo xam ne da ngaa tax prip prip prip lu nekk nga def ko ba ci élection yi passé rek législative yi matugul juróom benn weer lu nekk nga opposition bi lu nekk rek yàq ko opposition bi tey nga ñëw bëgg a toog ak ñun di wax lan ci lan ngay war a ànd ànd ak ñun bu ñu am ñoo xam ne bu ñu jàkkaarloog Sénégal yi war a ñoom pers Sénégal yi nag ñoo bëgg ñu change changement bi nag dafa war a commencer suñu doxalin avant ñi ak fu ñu donc moo tax ñun parti démocratique sénégalais ñu ne ñun daal. Mm. képp koo xam ne yaa ngi bokk ci nguur mag président Macky Sall mënuñu bokk ak yow ci plateforme bu la neexee na nga ñëw bokk ci parti changé nañ nag tuum ñëw da ngaa nekk loolu ñu d'accord ci tey d'accord ci ëllëg mënoo yàq bokk ci yàq ba pare nga ñëw tey na da ngaa bëgg ñëw xeex président Macky Sall man jàpp naa ne ñooñu ak président Macky Sall ñoo bokk atte tey ñoom ñëpp pour man ñoom ñoo indi Sénégal bi ñooñu nag dañu war a fekkee nele waruñu bokk ci leneen waruñu bokk ci troisième mandat troisième candidature waruñu bokk ci dara dañu war a seetaan opposition bi kiñ ci wóolu nga dem doxal ñoom ñu nekk ak opposition liggéey bu leen Sénégalais yi wóolaate ñu ñëw waaye waruñu mën a ñëw dugg ci suñ biir bëgg ñu taxal wala yàqal ñu loolu ñun d'accord ñu tey d'accord jël Euh, PDS est-ce que euh, dina d'accord bu fekkente ni président Macky Sall dafa bokk ci élection présidentielle bu deux mille vingt quatre. Euh, euh, président Macky Sall amul droit def troisième candidature parce que président Macky mu dugg ci nguur bi bañ koy fal daa fekk Sénégal Ablaye Wade ba mu ñëwee 2001 la tënk ne nit daal mënutu def ñaari mandat lépp ñaari mandat Sénégal président Ablaye moo ko njëkk bind waaye nit ñi dañuy jaawale toujours di wax ne président Ablaye Wade li mu defoon la président Macky Sall def mais wute nañu président Ablaye ba muy ñëw kenn la dara tënku booba Abdou Diouf ak parti socialiste ñoo fi nekk fàttali leen Abdou Diouf ñaata at la def Sénégal ñaata mandat la fi def Ablaye ba mu ñëwee moo ne loolu du yoon dañ koy dañuy dañuy limité mandat képp ku fi defee ñaari mandat doy na sëkk da ngay dem keneen jël loolu la président Ablaye Wade def donc Ablaye Wade ba muy ñëw moom amutoon limitation ni mandat bañ ñu koy fal moom ba mu koy fal dama bu ma neexee am mën naa am ñaar ñett ba ñeent waaye président Macky Sall ba ñu koy fal dañ ko yow mënoo passé ñaar donc président Macky Sall amul droit de troisième candidature loolu moom leer na nañ moom kay li ci des mooy est-ce que moom ci boppam li mu waxoon ci boppam dana ko def wala ko def waaye président Macky Sall moo la gën a xam loolu moom wax na ko bind na ko ci des kay moo di ne hmm. Sénégalais ñoo war taxaw ñu ñëpp takku. fexe ba ku war a bokk nga bokk parce que pour man loolu ëpp am solo parce que bu ñu bëggee éliminer ay candidats fii ci affaire tribunal affaire justice affaire du yoon dañu war a bàyyi képp ku bëgg a bokk mu bokk moom moo war a bokk mu xool keneen koo xam ni benn bokk yaakaar mooy seen candidat mu bokk bu defee jàmm jàmm na ñooy Sénégalais ku bëgg tànn ko ñu tànn ko réew mi nekk ci jàmm parce que réew mi kat nag ñu ñoo bokk Sénégal jàmm la xam te lépp loo bëgg te amoo jàmm amoo dara. dernière mhm. oui allez-y oui. donc di wax rek gis ngeen dégg ki barki démb président Abdoulaye Rom génne di wax jàmm donc ñun ci loolu lañu nàmpatal ci loolu la def guddi ak bëccëg boo bëggee dem palais rey nit boo demee palais bi la sax dara ñu bëgg mooy ànd ak sénégalais yi ñoom ñëpp ci jàmm ak ku nekk sa liggéey ba ñu yàqu ku nekk nga fekkee ndax lépp loo gis fekkee da ci am sot donc ñu loolu la ñu bëgg jàmm Sénégal. yàlla may ñu le président Karim Wade mu ñëw ànd ak tous les sénégalais ñu dem te palais pour développer te président Karim Wade ku ko gis quand même nga gis ko mu nekk Qatar ak liggéey mu koy liggéey ak nekkay mu fi nga xam ne namul dara li tax mu bëgg ñëw Sénégal lenn rek mooy bëgg développer Sénégal xam na ne wax dëgg yàlla am na fi njëriñ am na lu mu fi mën a def te sénégalais yi ñun ñu fi ànd ak moo xam nañu xam nañu président Karim Wade mooy la chance pour le Sénégal j'allais dire la chance pour l'Afrique d' accord dernière question moom mooy fi ñu toll ni arrestation yi bari na euh, juste une minute rek ñu gis ni c' est la chasse à l' opposition naka nga ko gisee Abdou Thiam waaye mooy loo xam lu anormal loo xam ne kenn mënu ci nangu ñun PDS en tout cas d' accord ci tey d' accord ci mbilim lañ rek ñu jàppale dugal ci kaso te lu woo saaga euh, woo sàccoo jaayoo drogue euh, géruñ la wax sa nga wax réew mi nag léegi nag wax sa xalaat moom dafa nekk loo xam ne déli la fi te yéen a ngi fàttali ko président Ablaye waat lu nekk wax nañ ko président Ablaye Wade lu nekk wax nañ waaye mosul tëj kenn ci ay wax mais loolu nit démocratique moo koy mais président Macky Sall gis nañu ba fi nekkee ba léegi surtout jamono yi li ñuy tëj nit ñi dafa ëpp loolu nag dañuy ñaan opposition bi Sénégalais yëpp fexe ko xeex parce que réew mi bu demee ba kenn mënut a wax sa xalaat doy na waar jàpp nañ ne nag saaga du yoo man jàpp nañ ne wax lu du dëkk kenn waru ko def waaye wax sa xalaat ku nekk war am droit wax sa xalaat donc loolu mooy position parti démocratique sénégalais ñun on est contre toutes les formes de répression yoo xam ne dafa tegu ci eh, wax sa xalaat nit daal dafa war a wax xalaatam waaye nag wax xalaat xool nga tuumal nit warul nga saaga nit donc foofu en tout cas ñun on est d'accord ne dañu xeex pour que képp koo xam ne dañ la tëj sa wax sa xalaat ñu génne la tous les délits d'opinion ñu génne leen parce du yoon réew mi dépassé nañ foofu war nañu dépassé loolu démocratie Sénégal war na dépassé foofu. voilà Abdou Thiam Rewmi mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi. merci madame jërëjëf. voilà Abdou Thiam may fàttali ni yaa ngi bokk ci parti démocratique sénégalais nekk vice-président bu commission communication ñu lay remercier euh, ci nangoo tontu bi nga nangoo tontu suñuy laaj. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.